muy benn Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ñu am ay jafe-jafe yoo xamante ni si dañuy jàll. parce que fa nu jóge dafa am konu fa tànn te itam bi nga xam ne ñoom ñoo ngi génn ci wàllu politique bi xeex bi nga xam ne amoon na ci ñeenti at yile jàmmaarloog wàllu politique gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ñetti at yiy jàll ñoom dafa am pàcc buñ faroon ñeneen am pàcc buñ taxawee. société civile bi am ci société civile bu nekkoon ci diggante bi donc. boo génnee fële na li daal ne tey damay jàmmaarloog ñi nga xam ne ci ñoom laa génnee te génnoo ci waxtu wu yaatu waaye bàyyi ba yëf yi jege ci lu toll ci juróom benn weer wala juróom ñetti weer nga doo génn da ngay am jafe-jafe euh, waxtu wi nga xam ni ci nga war a liggéey pour dajal lu la mën a jàllale ci loolu wala ngir wax tamit leneen loo xam ni programme la bu mën a taxaw ci jàppale la ci jàllale la ci lu bari kon mën nañu jàpp ni hypothèse yooyu noonu mën nañ ko teg ñi nga xamante ni ñoo bokk ci benn te am ay jafe-jafe jàll lii ñëw nag ci wàllu at yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko nga xam ni tey jii ñi laaj réew mi dañuy am at yooyu noonu mu mel ni ay at yu suufe tam bu wuute ak li mu miinoon mm-hmm. ci ñi nga xam ne dañuy laaj réew mi phénomène bu large la mm-hmm. ku waxoon gën naa yaatu waaw bu large la boo demee ci yeneen réew yi mm-hmm. ay leader yu ndaw ñoom ñoo fa nekk ñoo xam ne duñu ay mag ay leader yoo xam ne boo ne bërit mën nañoo daw cent mètres vitesse Emmanuel Macron l'a presque trente et la am yeggul sax ci quarantaine mm. euh, doon président wu cinquième république bii di la république française bañ rek di ko bàyyee ak ses ak ses politiques ses politiciens ñi muy jàkkaar lool fi yàgg nekk ñi muy jàkkaar lool ñu ñu bëgg koo xëccoo ak moom ñi ci ëpp tey jii ni ñoo mag Emmanuel Macron euh, voilà boo wàccee ba ci suuf tey jii ñëw ci suñu réew yi donte ils ne sont pas des références en démocratie ci réew yi nga xamante ni si dañu faa foqar ci nguur jël ko waaye ñi ko jël ay ndaw lañu boo ñëwaatee tey jii nii ba ci suñu biir réew mi bëri na avancé yoo xam ni ci wàllu politique am na ci ndaw ñi président Abdoulaye Wade moo ko xewal. Hmm. jël ministre bu doon xale tabb ko jël député bu doon xale ci at yu néew yu nu foogul tabb ko. saa yu ñu demee assemblée nationale presque le plus jeune député ci sa parti lay jóge sa gouvernement ci lañ nemmeeku député bu ministre bu am ay at yu néew a néew yaa ko njëkk a fal. loolu nag dafay jox élan. tey jii ndaw bi nga xamante ni dafay jàng am di am gis-gis ci réewam di am gis-gis ci yeneen réew yi am bëgg-bëgg ay mébétu soppi xar kanamu réewam dafay tax mu teel a engagé wu ci organisation politique te léegi njàng dafa yomb bu njëkk njàng dafa jafewul. Hmm. tey jii nii euh, ci cursus bu euh, parcours bu ndaw. ki nga xamante ni si jàng na ba am bagam dana góorgóorlu ba tey jii nii am benn niveau bi intégrer une une entreprise def fa cinq ans wala six ans sept ans doon un cadre aguerri boo xamante ni si ci jumtukaayu xarala yi dëppoo ak jamono da ciy xereñ lool parti politique bu mu intégré cadre la ci doon. Mm. loolu tey jii bokk na ci lu nga xam ni moo favorablal tey ndaw ñu baree baree bari am taxawaay nag jëm ci seen réew bu ñu toppee li nga xam ni moom la ñu bu yàggul dara xayma réew mi nan naka la ñu bindoo. li nga xam ne moo ci ëpp te gën caa fés mooy ay ndaw. Mm-hmm. Euh, bu ñu ko xaymaa yegg nañu ci presque bu doon téeméer bu doon ñeenti pàcc la ñetti pàcc yi boo ko jëlee ay ndaw la doon euh, ñu ngi am lu yées fanweeri at ak juróom. Mm-hmm. Euh, loolu nag dafay màndargaal tey jii taxawaay bi war a ëpp ci ci jamono bu nekk ci wàllu lu ñu mënti di doxal ci biir réew mi mm, ay ndaw fés ki ndax Sénégal dañu am taxawaay boo xam ne dañu ko nemmeeku ndaw ñi du ñu leen di consulter. Mm-hmm. dañu leen di jëlal décision. Mm-hmm. te jamono moo weesu foo jëlalee sa ndaw décision da nga koy laaj. Mm-hmm. da ngay créer kanaal boo xam ni dina mën di waxtaan ak yow directement nga xam lan mooy ay bëgg-bëggam nga jël ko capitaliser ko jëmmal ko ngir mu doon njariñ lu muy liggéeyee ngir réewam mën a gën a jëm ca kanam mu mm-hmm. bokk ci liy participer ci liy développer réewam tax mu am pas-pas ak bëgg des ci biir réew mm-hmm. loolu tey jii mën na taxawal wone ndaw ñi nga xamante ni si ñu ngi ñu ngi teew bu baax ci wàllu politique bi mm-hmm. ba pare leader yi am ay at yoo xamante ni yu suufe la wuute ak li ñu doon nemmeeku bu dee ci li nga xamante ni si nag mooy jàllum parrainage bi organisation politique xam nga lu koy jàllale ci compétition bu muy dem organisation et méthode da ngay am noo taxawee ba pare am ay pexe pexe yu jaar yoon mm-hmm. boo liggéeyul ci am booloo noo tëggee sa kuréel ak pexe yoo xam ne moom nga tëral doo jàll ci dara mm-hmm. looluy dëgg mm-hmm. te mooy dëgg certains leaders on une présence à travers le discours ñu ngi exister ci wax Mm-hmm. dinañ dem ci télé yi dinañ génn ci journaux yi dinañ génn ci rajo bi dinañ dem ci réseaux sociaux yi parfois même il sa déplace pour maquiller ou ou euh, li Ablaye doon wax naan nan lañ koy layee wut wut cëslaayu ñoo ngi wër ci biir réew mi mm-hmm. mais samp ay points focaux ni ko abdulaay waxee yoo xam ne danga leen di dundal nga ñëw ci sa organisation politique fekk fa bureau des femmes bureau des jeunes filles fekk fa bureau jeunesse bi fekk fa bureau cadre yi fekk fa bureau sage yi am représentativité ci réew mépp juróom fukki go juróom téeméeri gox ak juróom benn euh, yi nga ak juróom fukk ak benn yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi fu ne nga am ku la fa teewal lool yi di liggéey di ko yokk mooy tax tey jii boo ñëwee ci lu mel nii mën cee jàll dañuy jaawale nag ñi nga xamante ni si doonu dañoo néew ay wax doon ñu ñu xamul ci wàllu espace médiatique bi wala ci coowu politique yi am te ñu doon ñoo xam ne am na askan wu leen xam di ànd ak ñoom. Mm-hmm. ñooy déplacé wu di dem ci ñoom di fasanteeg ñoom di tëral ay pexe ak nas ak kuréel goo xam ne bu ñu ñëwee ci lu mel nii mooy tax seenu jàll daal di yomb. Mm-hmm. man duma accuser fichier électoral ndaxam. bu loolu yépp weesoo ci càmbar gi ñu doon wax natt nanu kook nangam sàngam hmm. dayu yii nga gis tay jii ni tëralin bii nga gis ñu tëral ko ci daal di jëm ci càllale gi jëm ci wàllu jongante yi ñuy tabbee njiitu réew mi hmm. ci biir réewum Sénégal danoo woote waxtaan boo xamante ni réew mi yépp ko bokk am ñoo xam ne dañoo tànn ni duñu ca dem ba tax pexe ya nga xam ne moom la ñu waroon a waxtaanee. xalaat yi nga xam ne ñoom am na nañu ko jàpp ni bu nu ko tegee dana gën a ñoŋal tey jii nii càllale gii nga xam ne mooy tax ñu mën a jàll ci daal di doon ay candidat ci élection yi dañoo dañoo préféré daal di taxaw téye seen i yoxo bañ caa dem loola nag sañ-sañ la mun ngaa bañ a dem ca dara waaye fa ñuy nasee ak di noccee boo ca newul ba ñu nas leneen nocc ko dañ la koy appliquer dañoo koy doxal ci sa kaw ah, <laughs> mais bien sûr parce que l'erreur fatale de cette ci li ma jàpp. Mm-hmm. et li may wax ma la engagé. Mm-hmm. mooy ñàkk teew gi nu ñàkkateew a fi ñuy waxee di nasee ak li nga xam ne mooy ñëw ci ëllëgu réew mi. Mm-hmm. nga daat ne du ma ca dem. ndax taxawaayu politique boo xamante ni sii am nga ko ci jàmmarloo ak ki nga xamante ni si moo yor nguur sañ-sañ la am nga sañ-sañu bañ caa dem waaye boo ca demul ba ñeneen dem ca ñu tëral ca ni ñuy doxalee ci élection yi ba daal di koy jàllale ci assemblée ba ba woote ko ba adopte ko daal di koy jàllale journal officiel mu doon lu ñuy appliqué yow mi buñ la ko appliqué mu metti ci yow lool na nga xamante ni si yaa ñàkkoon a dem ca jotaay booba lu nu fa jëlee dañ la koy appliqué loolu mooy li nga xamante ni si mooy wér di wéy di dem ci ñoom li ngay gis nag ñu naan lee dina dinosaures politique maanaam ñu miinoon ci wàllu politique seen tur yi seen fi des tur yee fi des parti bu dugg ci coalition hmm. te coalition ba am ku ko jiite la Khalifa Sall doon bañ te Ousmane Tanor Dieng nangu woon ko moo lay dal parti bu ndaw bu àndeek parti bu mag te parti bu ndaw bi jiite parti bu mag bi lay dundee. tey jii en 2012 boo laajoon parti socialiste ñaata collectivité territoriale lañ gagné ñaata mairie ak conseil régional booba soppeeguñ ko ñu wax la ni am nañ ci nangam tey jii boo leen ko laajoon du ñu la ci wax lu mat fukk bu dee am na ndaxam ñële dañuy seet noonu la teggee teg seen i njoñ ngir gën a am doole di di leen xëcc vous les les partis alliés aussi ténors qu'ils sont. ils seront la sève nourricière du petit parti qui dirige ou dont les leaders sont au mhm. loolu mooy li nga xamante ni moo leen affaiblir ba tax tey jii nii beneen taxawaay judd ci wàllu euh, kuréelu politique yu yees yi Bamba waaw Mohamed may commencer d'abord Mohamed mooy si wàllum fichier bi fichier électoral bëri na coow Mohamed mhm. jàpp naa ne bu ñu waxeentee dëgg mhm. amul benn leader politique woo la mën a taxaw si jamono yii naan da ngay kaas fichier bi. ah oui pourquoi. parce que gis nga suñu politiciens yi il faut ñu wax ak ñoom dëgg. man dañ cee am part de responsabilité. waaw parfois ils sont animés de mauvaise foi. loolooy dëgg. bu ñuy xeex li nga xamante ne day combat de principe. dana la see war a fekk. mois de mars bi ñu génn. waa PDS. waxoon nañu fii ne ñoom du ñu wuy ji si dialogue bi ngay wax lan lañu tegoon condition dañoo ne woon bala ñu faa dem il faut qu'on fasse un audit contradictoire du fichier. xam nañu ay ma yàggoon toog ne ma yàggoon toog si plateau yi wax fii ne bu ñu wootee si wàllum combat de principe il faut que les leaders politiques ñuy génn di xeex si wàllum principe yooyu mais parce que ñoom seen biir ñu seen biir ils sont animés de mauvaise foi parfois kenn ku ne da ngay jéem a xool yow li lay arrangé tey bu kenn toog si ñoom di wax naan ay problème fichier la parce que loolu bañ ko war a joytu dañ ko war a joytu bu yàgg béy wéy na muus hmm. ma ne amul ku ñam ñëpp ay ñam kan moo ñamul doublon moo ñamul doublon kan moo ñamu doublon eh. vous vous rendez compte que ce fichier là mën ngaa jàpp na ce fichier là est fiable mm-hmm. avec tout ce que l'on a dit PDS du ay caaxaan ay kàngam ñoo fa nekk bu la waxee ne la bari ñoom ci élection yi nañu wax wàllum fichier bi war na nga koo xeex mais un candidat aussi comme Bougane yàgg xeex mbirum fichier bi yàgg parce que xamoon na li xew mm. kan moo ko si fekk si kan moo ko si wuy si au contraire dañ ko sax diaboliser waa léegi nag ñoom ñëppay ñam kenn du génn si loolu